Sene Info International. mbokk internet ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak Sene Info International ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi dikkaat ak yéen ci yor yoru Sene Info fas yéene def nag euh, ab jàngat ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci xët njëkku yéenekaay yi ba suba euh, tey bii di euh, mardi dañ koy tàmbaleek l'évidence quotidien ñoom nag dañoo fësal seen xët gu njëkk Ousmane Noël Dieng artu yoo xam ne nag mu ngi koy artu jëmale ñu ne ci Amadou Ba wante it eh, di wax naan ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye eh, Daouda Diallo maam booy Diao ak Aly Ngouille Ndiaye dafa gis ne daal respecté wuñ eh, li nga xam ne ñoom ñooy mouvance présidentielle bi ñëwaat na ñit ci ñoo xam ne ay ténor lañ muy daal ñu am gëdd ci li biir APR ñu ne ñooñu nag ku si mel ni na Dia tudd nañ ko Abdoulaye Daouda Diallo ak daal ay milliardaires euh, yoo xam ne euh, bokkoon nañ ci Macky 2012 euh, ñu ne nag ñooñu daal boo moywul dinañu booloo kon def daal seenub coalition ngir nag kon seen ñàkk ànd ci tànn bi nga xam ne njiitu mi kon tànn na ko kii di. amadu Ba beneenu ba journal ba sub tey bi les écoles ñoom nag euh, ñu ne nag kii di amadu Ba ngir daal moytu euh, ay coow ak euh, yi ni mel jël na téléphone am woo ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo wante it Mohamed Boun Abdallah Dionne ngir nag rencontré leen kon ñu mën a waxtaan moom Amadou Ba ba léegi ñu ne ci biir semaine bi war na présenter ab charte. bu Benno Bokk Yaakaar muy nag loo xam ne da ngay waxtaan kon xaatim ko bu coalition Benno Bokk Yaakaar kon moo ko amal ci li nga xam ne moom mooy biir semaine bi ba léegi it ñu ngi samp laaj ci poste premier ministre bi gannaaw bi nga xamee ni Amadou Ba tànn nañ ko mu nag war a démissionner ana kan moo koy utu ci bopp kon bile. premier ministre les échos fësalaat euh, match Sénégal Algérie bi war a am bés bu tey bi match amical la wante nag euh, nee nañ daal euh, dina romb ab match amical ñu bëri jàppee ne sax xanaa match revanche lay doon ndax xam ngeen ne nag Algérie mi nga xam ne moom la ñuy dajal moom daal daf ñoo nennu fu mu ñu fekk rek daf ñuy dóor kon ba tax na nag ñu bëri jàpp ne match bu neex lay doon. bés bu tey bi sëñ Mor ñu jàll ci beneen bi yéene kaay muy sunu làmb ñoom nag dañoo fësal Ama Baldé moom nag euh, def na promesse ñi nga xam ne moom mooy waa nee na daal combat bi war a dox diggam ak Modou Lo li nga xam ne moom mooy couronne bi dina ko nangu ci Modou Lo le 5 novembre euh, bi ñu euh, dëgmal ñëwaat nañu it ci claf bu am solo boo xam ne Gaston Mbengue moo ko taxawal boole ca nag ay xale yoo xam ne ñu mën a bëri lañ ci jamono ji ñu toll. sëñ Mor ñu jàlle kon ci beneen euh, yéenekaay yi muy le témoin ñoom nag dañoo fësal seen xët bu njëkk Birima Mangara nekkoon fi ministre du budget euh, moom nag nekkoon sax collaborateur ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba mi ñu tànn moom nag Birima Mangara dafa nekk samp ndëndëm ci élection présidentielle bu 2024 kon moom it ñu jàpp ne dina bokk wala boog bu fekkee parrainage am jàll na dina bokk ci jongante boobule élection présidentielle ñëwaat na ñit euh, ci li nga xam ne moom mooy Kédougou ak mbir mu doy waar mi fa xew démb xam nga dafa amoon ay ndaw yoo xam ne dañ fa doon jàmmarloog euh, ñii di euh, takk der yi ba ñaar si ñoom faatu loolu it fësal nañ ko buñ jàllee rek ci beneen yéen kaay mooy le mandat ñu ne fi mu nekk nii nag Macky Sall li nga xam ne nag. dina ko def euh, wala bokk li nga xam ne euh, moom la war a def euh, diggam ak ñi nga xam ne kon daal ñoom la ñuy woowee les contestataires mooy ñi nga xam ne gannaaw bi mu tànnee Amadou Ba dañoo jug ne daal loolu ñu ca bokk na ca Aly Ngouille Ndiaye ñu ne daal ñaar la mën a def la carotte ou le maanaam daal waxtaan kii ñoom wala bokk dóor ci taabal ji jëli dogal yoo xam ne daal ngir sanctionné leen lay doon ñëwaat na ci ci Aly Ngouille Ndiaye bi ma doon tudd léegi. ak nag euh, bàyyi ba nga xam ne daal bàyyi na ko jafe-jafe yi mën a indil euh, Benno Bokk Yaakaar ak euh, yi ni mel ñëwaat nañ ba léegi ci li nga xam ne waaw kon dañuy jàll ci journal enquête enquête nag dafa ñëwaat ci élection présidentielle bu 2024 ak nag présidentielle des inconnus mu ne présidentielle daal la mu woowee présidentielle ñi nga xam ne euh, miinuñ leen noonu am déet wante nag euh, xaw na ma jaaxal wala book euh, dama comprendre bu baax lan lañ mën a lan wax ci titre bi mais gis naa fi ñoo xam ne moom ah xam nañ leen lool dañuy miin la moom xanaa fii moom Anta Babacar Ngom rek lay wax ne kenn xamu ko fi wala book ñoo xam ne seen popularité bi ñu amoon dafa wàcc wala mën na am foofu la ñuy waxee en tout cas daal fësal nañ Khalifa Ababacar Sall ak kii di Amadou Ba kii di Mimi Touré ak Anta Baba Ngom wax léegi ki nga xam ne moom mooy euh, Idrissa euh, Seck wante it ak euh, Karim Meïssa Wade li ma doon wax rek di ko mën naa am ndax xam nga ñu bari jàpp nañ ne fi mu nekk nii li nga xam ne moom mooy oram ci politique wala yu mel noonu dafa wàcc Karim Wade it am na ñoo xam ne dañ ko jàppee candidat fantôme maanaam candidat la boo xam ne kenn gisu ko. peut-être kon foofu la ñuy waxee ba tax ñu titre euh, ni ni ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne euh, moom moo am fële euh, ca Xosonto nekk ca département bu Saraya région bu gu xam nga nag mbir ma li ko waral ki nga xam ne moom mooy préfet ba dafa jëloon daal ab arrêté ngir indi ay coppite ci li nga xam ne moom mooy la ñuy recruter nit ñay liggéey ca mine ya maanaam fañ exploité or gannaaw loolu nag ay am ñu jóg ne ànduñu ca kon ca la manifestation yi am kon ba ñooñu ñàkk seen bakkan ñaar lañ kenn ki sax ñu ne magu meeru dëkk ba la wante it eh, am na eh, juróom eh, wala bokk fanweeri nit ak juróom-ñaar 37 personnes ñu ne yoo xam ne teg nañ leen ci loxo am na it ñoo xam ne am nañ ci gaañu gaañu sëñ Mor ñu jàll ci beneenu ba yéene kaay muy tribune ñoom nag ne nañ daal Amadou Ba fii mu nekk nii. yi nga xam ne euh, moom moo koy xaar du yomb gannaaw bi nga xam ne nag euh, tabb nañ ko kon ñu ne daal contexte bi nga xam ne euh, tabbee nañ ko si dafa fekk ay jafe-jafe am fi nga xam ne moom mooy Sénégal lu si mel ni dund bu seer bi lu si mel ni ndaw yi nga xam ne ñu ngi naan ñàkkub liggéey ñooy tax ñu jël mbëkk mi ak daal bataille intra APR maanaam xeex bi nga xam ne ci biir APR ci boppam la am ñu ne loolu yëpp daal nekk na loo xam ne du contexte bu favorable. pour ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba tànn bi ñu ko tànn kon mu war a jiite mouvance présidentielle ci élection présidentielle bi ñëwaat na it ci Mame booy Diao ñu ne sur le départ ñu ne nag moom boo moyul fi mu nekk nii daal dina wan ginnaaw coalition bennoo Bokk Yaakaar APR ak kon makki Sall gannaaw bi nga xamee ne moom it dafa euh, bëggoon doon li nga xam ne kon moom mooy candidat boobu ñuy choisir ñëwaat nañ ñett ci euh, mbir mu doy waar manifestation yi nga xam ne am na ñàkk nañ ca seen bakkan ñu ne nag euh, arrêté bi moo doon wax sax nga xam ne moom moo indi coow li euh, ki nga xam ne euh, moom mooy ministre de l'intérieur jël na dogal ngir boobule arrêté mu abrégé ko maanaam mu neenal ko sëñ moor ñu jàll ci beneen yéene kaay le quotidien ñoom nag ba léegi ci Amadou Ba la ñu ñëwaat moom mi ñu tabb muy candidat bu bennoo ci élection présidentielle 2024 ñu ne nag booy xool daal Euh, ab profil bu baax la te it koo xam ne la euh, daal ku xam euh, politique la ku ci yàgg la ñëwaat nee nañ daal dafa mel ni sax moom ku ñu préparé woon la kon ngir mu ñëw doon li nga xam ne moom mooy candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam nag moom jot naa occupé ay poste ministre yu bëri yàgg na ci état ñëw ba yëkk ba doon premier ministre ñu gis ne nag li logique mooy peut-être fi muy mujjee nekk njiitu réew ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy match bi nar a am tey. diggante Sénégal ak euh, Algérie ñoom nag nee nañ un match pas amical donte match xaritoo lañ ko woowee wante match boo xam ne la jàpp nañ ne match bu euh, neex lay doon match bu métti lay doon ndax Sénégal bu bëgg ki nga xam ne moom mooy Algérie dóorati ko bésu ba euh, tey bii beneen yéenekaay moor mooy réew mi quotidien ñoom sax booy xool seenu ba xët bi gën a fës benn la muy Amadou Ba nee nañ nag fi mu nekk nii. li nga xam ne moom mooy dispersion maanaam ñàkk déggoo gi am ci opposition bi nee nañ loolu euh, atu lay doon maanaam ab avantage lay doon ci ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba ci jongante élection présidentielle bi nga xam ne jëm nañ fa euh, Serigne euh, Mor kon dañuy jàll si beneen yéenekaay mooy l'info l'info nag ñu ne nag gannaaw bi nga xamee ne fi mu nekk nii nag désigné désigné nañ maanaam. candidat bu coalition benn Bokk Yaakaar muy Amadou Ba ñu ne loolu nag dafa mel ni dafa yëkkatiwaat pre campagne bi maanaam xam nga euh, fan yi weesu wala jamono yi weesu nemee xaw nañ nemee ko ab tekkaaral ci langue politique yi mais nee nañ nag gannaaw bi nga xamee ne opposition bi fi mu nekk nii xam nañ kan lañ war a jàmmaar lool ci camp présidentiel bi euh, muy nag Amadou Ba nee loolu nag tax na takkaat nañ seen i euh, ngemb jogaat gis nañ Mimi Touré sax nee na dafa bëgg am débat public boo xam ne débat médiatisé lay doon diggam ak Amadou Ba ngir ñu ñëw waxtaan ci seen ay projet euh, ak seen programme ak yeneen mel gis nañ itam Khalifa Sall reprendre ay activité am ak yeneen opposants yoo xam ne fi mu nekk ni daal dafa mel ni loolu daf leen yëngalaat euh, Serigne Mor beneenu ba yéene kaay moom mooy euh, source a dikkaat nañ nag ci mbir mi xew fële ca xosonto ñaar nit ña fa ñàkk seen bakkan ñu ne nag arrêté préfectoral maanaam dogal bi nga xam ne préfet ba moom moo ko jëloon ngir daal indi ay coppite te nañuy tànnee nit ña ngir ñu liggéey ca miin ya ñu ne loolu nag Antoine jom annulé na ko ki nga xam ne it moom mooy collègue am di Omar Sarr ministre bësu su tey bi xaar nañ ko mu dem foofu foofule ca euh, xosanto ñëwaat nañ itam ci euh, wala bokk ñu jàll kon ci beneenu ba yéen kay moom mooy bés bi le jour bés bi nag fësal seen xët wu njëkk audience boo xam ne am na ci diggante Macky sàll ak kii di euh, Amadou euh, Ba ñu ne nag euh, boobu la audience daal ki nga xam ne moom mooy Macky jéem na waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ngir calmer ko ndax moom nag xam nga dafa bëggoon doon it candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ne nag moom kii di Abdoulaye Daouda Diallo wan na daal njiitu réew mi ne andu ci tey ànd gi suba te ñu ne sax def ko. Euh, li mu bëgg daal fi mu nekk nii mooy ñu tabb ko poste premier ministre bi ma doon wax sànq ne kon xamuñ kañ lay doon ñu ne nag moom bëgg na euh, fi mu nekk nii kon mu doon moom ñoo nañ itam ci Lassana Gagny Sakho euh, mi bokkoon ca la bokk bokk ci Pastef mu ne fi mu nekk nii nag war nañ xalaat ci li ñuy woowee plan A B ak C ci maanaam candidature Pastef Pastef ci élection présidentielle xam nga nag ba fi mu nekk nii Pastef ñoom daal dañuy wéy euh, wala bu ñu ci ëpp dañuy wéy naan Ousmane Sonko moom rek mooy seen candidat euh, te nag euh, xam nga fi mu nekk nii mu ngi am jafe-jafe wàllu yoon ba sax mu ngi kaso ñu bëri nag kon Lassana Gagny Sakho mi ci la bokk bokk na ci ñi yaakaar ne kon parti Pastef war nañu mën a xool plan A plan B ba sax plan C ngir nag kon jéem a bokk. ci élection présidentielle bu mille vingt 2024 bu fekkee Ousmane Sonko du ca bokk direct news fësal seen xët wu njëkk Aly Ngouille Ndiaye ñu ne nag am na lu toll ci 16 euh, maires ci 19 maires yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Linguère ñu ne war nañ ko ginnaaw gannaaw moom bi mu wanee ginnaaw Macky Sall ak coalition benn Bokk Yaakaar ñu ne ñoo nit war nañ ko ginnaaw kon ñoom ànduñ ca la nga xam ne kon euh, décision ba mu jël kon euh, àndu ñu si ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne kon euh, moom mooy euh, Mountaga Sy bi jàpp ne nag euh, Amadou Ba daal candidat exceptionnel mais daal kii di Amadou Ba candidat bu baax a baax a baax la ngir li nga xam ne moom mooy coalition benn Bokk Yaakaar keneen nit di Faly li ni mel la wax. bu ñu jàllee ci yoor yoor ñoom nag dikkaat nañ ci li nga xam ne moom mooy Serigne Assane Mbacké gannaaw bi nga xam ne nag lu yàggul dara lañ ko la génn kaso ñu ne moom nag daal. commencé na waat yëngal euh, mbir ya mu ngay nag euh, tàmbalee ŋaññi waat ak euh, xas kii di njiitu réew mi wante itam di kañ ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko fësalaane it li nga xam ne moom mooy cérémonie désignation candidat bi nga xam ne kon moom moo am moom moo doon am fële ca pare bi ñu doon tànn ki nga xam ne moom mooy kan candidat bu Benno ñu gis ne nag ki nga xam ne moom mooy RTS daal na mu couvrirez euh, boobu la événement dañ koo ñaawlu gannaaw bi nga xam ne RTS euh, sëñ Mor dañu fàttali ne RTS service public la wante euh, lu mel noonu bu ñu demee xam nga couvrir ko te nag amaat na tey beneen bu fekkoon beneen opposant wala beneen parti mooy inscrire moom xalaatu gis fa li nga xam ne moom mooy RTS kon bu ñu jëlee RTS bu jëlee tey événement bu mel noonu publier ko en direct. kon day wane kumba am ndey ak kumba amul ndey bi nga xam ne da koy faral di def te koy jiiñ kon lii nag. day fësal ne kon euh, RTS te déewul njaaxaanaay ci li nga xam ne kon euh, moom mooy euh, na mu war a yemalee sëñ Mor ñi nga xam ne ñoo siq langu politique gi. Walf Quotidien ñëwaat ba léegi ci match bi nga xam ne war na am bésub tey bi ci diggante Sénégal ak kii di Algérie ñu ne nag les lions face à leur bête noire sénégalais daal day ñi ñi dajal ñoom ñooy ñoo xam ne ñu leen nennu lañ fu ñu leen fekk rek dóor leen Aliou Cissé nag jàppewu ko match revanche bi nga xam ne moom mooy Belmadi entraîneur Algérie mu ne nag euh, suñu équipe Sénégal référence la ci Afrique loolu moom yaakaar naa euh, du ay wax rek euh, suñu joueurs yi wane nañ ko depuis Coupe d'Afrique ba léegi li xam ne moom mooy ay ndam moom dañ koy am ci wàllum football ñëwaat nañ it ci maanaam ñàkk jiboo gi nga xam ne dafa am ci biir APR ñu gis ne nag loolu dina nekk ay jafe-jafe ay lënt lënt ngir ki nga xam ne kon moom mooy Amadou Ba wante it mbir ma xew ca xasanto ak ñaari e, nit yoo xam ne faat nañ leen fa e, wal fajiri nag di dëggal ne kon am na ñaar ñu fa faat ak it juróom benn yoo xam ne am nañ ay gaañu gaañu ci boobu boobule mbir sëriñ Mor. L'Observateur ñoom nag dañoo fasal seen xët wu njëkk activiste bii di Kayz foofu moom nag ñu ne teg nañ ko loxo fële ca e, France ca Paris fi mu nekk nii nag mu ngi ci garde à loolu nag mu ngi am. gannaaw bi nga xamee ne xam nga ministre bii di Doudou Ka dafa euh, demoon ñu ne nag ci hôtel ba mu nekkoon ñu ne moom mais kaay foofu kon daal euh, fa la demoon ñu jàpp ne nag da ko menacé euh, kon nag mbirum daal ay menace nag ak agression ak yi ni mel gannaaw bi nga xamee ne nag kon ministre bi dañoo porte plainte wante ñi nga xam ne ñoom ñooy hôtel ba itam dañoo porte plainte kon ba tax kayis foofu fi mu nekk nii mu ngi ca loxoy yoon foofale ca France Serigne Mor. libération yéen kay fasalaat seen xët wu njëkk euh, xat bi nga xam ne dañ koy nemmeeku fii ci ndakaaru maanaam xat mi ci euh, yoon yi ñu ne loolu nag dina tax ba ñi nga xam ne daal ñoo dëkk Dakar at bu nekk ku ci nekk dina euh, daal ami jafe-jafe wante di nga ñàkk lu toll ci quarante heures ci loo xam ne ay waxtu la ci xat boobu nga xam ne kon d'habitude day am embouteillage yi ak yooyu neen na loolu li muy indi ci perte économique toll na ci 235. milliards de francs CFA nee na it xat yooyu nga xam ne mu ngi am embouteillage yi ak yooyu oto yi taxaw boobu ñuy taxaw di lakk essence nee na loolu it buñ ko xayma day toll ci cent quatre milliards kon loolu yëpp euh, jafe-jafe yooyu li nga xam ne moom mooy embouteillage yi ak bouchon yi xat yooyu oto yi di xat dañ koy faral di indi sëriñ ma Sud Quotidien fasal ci xëtam bu njëkk ab grève bu cent vingt heures boo xam ne ñii di liggéey ci collectivité territoriales yi mairie yeeg yooyu ñoom ñoo koy amal euh, ñu ne nag lañuy laaj moom mooy ñu euh, revaloriser li nga xam ne kon moom mooy euh, seeni salaire am na it yeneen waaye daal ngeen ñu yokku salaire ya moom mooy la gën a fës ñëwaat nañu itam ci match amical bi nga xam ne kon war naa am bésub tey bi ci li nga xam ne kon moom mooy Sénégal ak kii di Algérie muy match boo xam ne kon match bu am solo lay doon ci gaynde yi te it dinañ ko bëgg a remporter laas yéenekaay fësal ci xëtam bu njëkk ba léegi euh, Birima Mangara bi nga xam ne kon nee na candidat la euh, ci succession bu Macky Sall kon euh, fële ci élection présidentielle bi ñu war a dëgmal ñëwaat nañ itam ci tànn bi nga xam ne tànn nañ ko Amadou Ba ngir nag mu doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar nee fi mu nekk nii nag. bennoo benn choix lañ am soit ñu booloo mën a ànd am yaakaar dem ci élection yi wala nag ñu tasaaroo euh, mbir ya jeex tàkk stade yéeni kaay fësal ci xëtam wu njëkk match amical bi war a am ba tey bi diggante Sénégal ak Algérie ñu ne nag dielu champion d'Afrique la ñaari champion d'Afrique muy Algérie maanaam ak euh, ñii di waa euh, Sénégal ñii fàttali nag ne Algérie ñoom équipe la boo xam ne fu fekk Sénégal rek sëñ Mor da koy dóor Aliou Cissé nag di àddu jëmale ci boobu match nee na nag match bu mag a mag a moom jàpp na ne eh, moom lay doon ki nga xam ne moom mooy naataangoom di Jamel Belmehdi xam ne nag Sénégal équipe bu ama am solo la eh, ci eh, lii di continent bu Afrique Serigne Mame le soleil yéen kaay fësal ci xëtam bu njëkk faat bi nga xam ne faat nañ ko ab élève bu toll ci vingt ans sant Ndiaye fële nga xam ne moom mooy Kër Mbaye Fall tey nag ku ko def fekk ba ci biir salon am na nag ñu naan ab waajum doon bëgganteel moo def euh, li ni mel ñëwaat nañ nag ci boobule euh, meurtre ak nag euh, mbir yoo xam ne daal wax nañ ko ci nga xam ne moom lañ jortu ne moo def def ju ñaaw joojule ñëwaat nañ it ci séisme ba nga xam ne moom moo am ca Maroc ñu ne nag ba fii ci Ndakaaru ñu ngi ko fi yëg xam nga nag ndakaar dafa am. communauté marocaine bu am solo bu fi nekk kon nag ñàkkul ñooñu lañ am ak waxtaan ba ñoo ñit ñu wax ana naka la ñuy dundee kon mbir mu dewaar boobu bilan sax évolué na ba fi mu nekk nii sëñ moor ña ca faatu boo moytul jege na lii di 3000 eh, morts vox pop fësal ci xëtam bu njëkk ba léegi eh, mbirum ah, xosanto ak nag ñaari nit ñi sa ñàkk seen bakkan ñu ne bu ko weesoo am na fukki nit ñoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu ñu ne nag arrêté préfectoral bi nga xam ne moom moo waraloon coow li ba ñëw ñu ñàkk seen bakkan boobule arrêté eh, kii di euh, ministre intérieur di kon euh, Antoine Félix Diome abrogé na ko maanaam dakkal na boobule arrêté ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa droit de l'homme ak ñi ni mel daal ñu ngi laaj ñu amal ab enquête bu sérieuse bu indépendante ndax nag am na ñaar nit yoo xam ne kon ni ma ko waxee dañ cee ñàkk seen bakkan te ñu ngi naan dañ leen dóor. balu fetel loolu na kon tax ba ñuy laaj ñu amal ci enquête boo xam ne kon bu indépendante la ñëwaat nañ it euh, ci ab alerte maanaam ab artu daal bu ñu amal jëmale ci li nga xam ne moom mooy euh, ravage yi nga xam ne kon maladie non transmissible muy amante ñu ngi koy amal fii ci Sénégal muy ay feebar yoo xam ne sëñ Mor du wàlle li si mel ne ay diabète ak insuffisance rénale cancer nee nañ daal feebar la yoo xam ne mu ngi def jéeye fi nga xam ne moom mooy suñu réew Sénégal mbokk internet yi loolu lañ ñëwoon tey ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci xëtu njëkk yeneen kaay yi di leen jaajëfal seen teewlu di leen jox daje ëllëg yaa ngeen jëf